alhamdulilahi rabil alamin bon gannaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi euh, sant vraiment ñëpp ñi nga xam ni ñooy samay waajur sama famille euh, maa ngi nuyu maa ngi leen nuyu yéen journalistes yi d'abord di jégalu ci retard bi ma am ni parce que le point de presse euh, dañ ko prévoir woon 4 heures mais ma amoon benn gan boo xam dafa yéex a libéré moo tax ma ma ma ma yéex a ñëw maa ngi leen ci jégalu parce que yéen seen liggéey Euh, amu leen temps wu toog fenn di xaar bi ngeen waxee heure rek da ngeen war a ñëw heure après def jàll ci leneen quoi donc loolu maa ngi ciy jégalu bu baax euh, donc di sant yàlla bu baax vraiment ci échéance yi ñu jóge nii euh, nous avons fait pratiquement 15 jours de campagne mais defe naa bataille bi du woon 15 jours de campagne yi 15 jours de campagne yi finalité rek la woon mais je pense que liggéey bii ñu def def naa yàgg na c'est depuis 2017 ñu ngi sur le terrain de Euh, parce que man daaw ma politique Thiès donc 2017 laa commencé ñëw di politique Thiès donc di wax ne élection yi liñ ci defee dañ cee sant yàlla bu baax parce que déjà dañuy wax ne dugg nañ ci bisimilahi rahmaani rahim génn si ci alhamdulilahi rabil alamin donc loolu déjà amul amul amul amul ku gaañu amul malade amul benn bévi boo xam ne am na ci élection yi donc loolu déjà dañ koy sant yàlla mais di sant. samay waajur yi nga xam ni ak sama famille yi nga xam ni ñoom ñoo ma jàppale ba ma egsi fii mais également aussi di sant euh, vraiment mon directoire de campagne ñi nga xam ni équipe bi nga xam ni ñoom ñoo ma accompagné durant toute la campagne électorale donc boo waxee Daha ki qui est directeur de campagne tudd nga toute l' équipe de campagne ñii fi toog ñi ñëpp ci équipe bi lañ bokk donc di leen sant di leen gërëm ci vraiment engagement bi ñu amoon amee côté pour réussir mission bi ñu amoon quoi maanaam nekk candidat mairie Thiès Ouest élection yi nag jeex na ni mu jeexee ñëpp xam nañ ko résultat provisoire yi génn na et que li ñu jàppagum moom mooy yeewi askan bi moom moo gagné élection yi au niveau de Thiès Ouest ma ci profito fii di point de presse bi pour di leen féliciter parce que tamit euh, dañ leen di félicité di leen ñaanal yàlla ndam bi ñu am mu doon ndam bu baax si ñoon et mu doon ndam boo xam day doon njëriñu Thiès. njëriñu askanu cees loolu la ñuy ñaan gañe baax na waaye gañe bi na doon njëriñu cees njëriñu ñëpp loolu tamit maa ngi koy ñaanal vraiment waa Yewwi Askan waaye ñun au niveau de And Siggil cees euh, maa ngi leen di encourager aussi di leen félicité parce que def lépp lu ñu mënoon def nañ ko quand ci campagne bi bien que y a eu des mais lu ñu mënoon def nañ ko parce que euh, dañu àndoon nag sunu benn xarit suñu nawle muy lay Dieye ci coalition boo xam ni moom moo ko jiite woon man ma nekk ci candidat ci ouest bi moom mu nekk est ak ville ba pare sunu collègue Ousmane Diop nekk noor mooy profité aussi ci occasion bi pour encourager mon ami Ousmane Diop moom i résultat yi génn na donc di féliciter foofu tamit yeewi askan bi bu nord mais fii nga xam ni mooy au niveau de l'est tamit sunu candidat Abdoulaye Dieye tamit moom tamit maa ngi koy féliciter di ko encourager en même temps parce que génn nañu résultat provisoire yi provisoire yi waaye mënaguñu wax ni maire Thiès Est tey am na maire parce que notre confrère Ablaye Dieye président ab Ablaye Dieye dafa déposer ay recours au niveau des tribunaux donc actuellement à l'heure où je parle kenn xamagul kan mooy maire Thiès Est tant que recours yi génnagul may ñaan yàlla Ablaye Dieye nekk maire Thiès Est mais ñaan yàlla recours yooyu nga xam ne Ablaye Dieye déposé na ko mu doon recours yoo xam ni recours yu valable lay doon yu baax lay doon ba nga xam ni Ablaye Dieye dinañ ko teg ci maire Thiès Est parce que njëriñu askanu Thiès Est la njëriñu askanu Thiès Est la mais aussi njëriñu Thiès gi yëpp la Ablaye Dieye donc di sant ñi nga xam ni encore jeunesse bi nga xam ni ñoom laa àndal ci campagne électorale bi yëpp muy une jeunesse vraiment dynamique jeunesse boo xam ne dañuy nekk ak man fii le matin jusqu'à deux heures trois heures du matin à mon service la jeunesse vraiment dama leen di sant di leen gërëm di leen remercier bu baax la jeunesse de And Siggil Thiès Ouest dirigée par euh, mon jeune frère euh, mon jeune frère Adama Sow Euh, vraiment kontaan naa ci ñoom ci cheminement bi ma am ak ñoom la jeunesse de And Siggil Thiès muy góor muy jigéen nag vraiment surtout vraiment les femmes même de la les jeunes euh, famille famille kontaan naa ci ñoom parce que vraiment ils se sont donné cette jeunesse là elle s'est donnée corps et am pour que ñun ñu mën a am ndam. docteur noo gisee euh, résultat bi maa ngi ñëw <laughs> maa ngi ñëw. ma pose question. léegi jeunesse boobu dama leen di dama leen di remercier di remercier aussi les femmes. du mouvement ànd sigil ànd euh, sigil Thiès femmes tamit remercier naa leen parce que ñoom tamit à l'image des jeunes tamit elles ont fait un travail extraordinaire à l'image euh, de la responsable madame Virginie Thiam Diop maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax donc di sant tamit ñëpp ñi nga xam ni ñoo nekk Lazaret quartier Lazaret bi nga xam ni fii laa dëkk fii la siège bi nekk maa ngi sant militants yi nga xam ni ak sama am di jàmm yi nga xam ne ñoo dëkk quartier Lazaret à commencer par cette euh, maison ak quartier Grand Thiès ak fépp fi nga xam ni tey nii ànd Siggil Thiès Ouest am na fa ndam am na fépp ndam parce que fépp participer nañ fa ci élection yi donc am nañu ñoo xam ni votel nañ ma donc maa ngi sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo ma votel ci ci ci ci ci Ouest bi ah, di leen wax ni tamit maa ngi leen di tàllal loxo pour que dynamique bii ñu am ñu mën ko continuer def nañu élection on est venu quatrième position sur des grandes coalitions parce que kii ci njëkk mooy coalition Yewwi Askan bi ñun ñëpp xam nañu coalition Yewwi Askan bi nu mu toll ci ay formation politique ñu ñëpp xam nañu Benno Bokk Yaakaar ni mu toll ci ay formation politique république des valeurs ku ne xam na ni expérience bi mu am bi muy doog a commencé sax xëy na ñun li ñu def nii xëy na defu ko woon donc ñun c'est la première fois ñuy participer à des élections fii si locales ici à Thiès vraiment je me félicite di féliciter équipe bi nga xam ne ñoom ñoo nekk Thiès Ouest vraiment pour man c' est des résultats c' est un score honorable c' score boo xam ne ñun ñëpp vraiment kontaan nañ ci parce que yàlla dimbali nañu au moins on a eu trois conseils yoo xam ne dañ dem conseil municipal foofu nekk yi nag ni ñu koy jàngatee moom mooy que ni euh, ñun nekkuñu ci coalition bu mag effectivement il faut qu'on le dise coalition bi ñu nekk man la ab lay Dieye ak Ousmane Diop am na yeneen am nañu ay alliés sax waaye c' pas à la dimension de coalitions yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu. donc quatrième position dans une compétition boo xam ne quatorze listes ñoo fi nekkoon je pense que loolu gàcce ngaalaam et je félicite vraiment ànd sigil Thiès os je félicite le directoire de campagne ak ñëpp ñi nga xam ni vraiment ñoom ñoo nekkoon ci équipe bi di remercier vraiment ñëpp ñi nga xam ne ñoo voteel docteur Sarr ak la coalition ak toute la coalition ànd euh, sigil Thiès Ouest maa ngi leen di remercier bu baax di leen wax ni dynamique bi dama bëgg ñu conserver ko parce que dañuy am yeneen échéance yoo xam ne dañ fay dem bëgg naa ñu continuer dynamique boobu ba nga euh, continuer waat dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom pour bën la gën leen a expliquer li nga xam fi nga xam ni foofu la ñu jëm pour échéance yi ñuy échéance yi ñuy dem ay failles am na on a disconvient pas parce que ay failles moom day am parce que on a on a ñun on voulait privilégier le porte à porte malheureusement on n'a pas fait beaucoup ça dama koy jàngat man personnellement parce que élection tamit bu ñu naxante dañuy wax tamit failles yi fu mu nekk on a fait beaucoup de mais on n'a pas fait beaucoup de porte à porte malheureusement ñàkk porta à porte yooyu ñu def suñuy yeneen ñi nga xam ne suñuy ñoo xam ne ñun suñuy kii lañu suñuy ñi nga xam ne ñoo doon jongante ñoom profité nañu dem ci kër yi naan ñun docteur Sarr ak Ablaye Dieye Macky Sall la ñuy liggéeyal te loolu tamit ça nous a porté préjudice dans les maisons man deux à deux jours de la euh, de la fin de la campagne lañ ma ne am na ñoo xam ne ñu dugg ci kër naan yéen ku leen votel rek votel nga Macky Sall je pense que loolu tamit ça nous a porté produit et loolu ñun bu ñu bëggoon ànd ak Macky je pense que amoon nañu bunt yu bëri pour dem ànd ak Macky Sall dem ci coalition Mborok Sow bi dem foofu donc ñun coalition citoyenne la ñu wax te moom la ñu doxee parce que suñu coalition ñëpp ngi ci société civile pouvoir ñëpp a ngi ci coalition citoyenne la donc toujours dama ko doon wax ànduñu ñoo diw contre ñu diw mais malheureusement y a des gens yoo xam ne dañoo dem ci nit ñi di leen wax ni docteur Sarr ku ko woteel rek woteel nga i Sall pour ñoom nit ñi xam nga et cetera loolu tamit dégg na loolu tamit lu ñu porté préjudice la beneen bi mooy que ni beneen yoon tamit bu ñu defati élection tamit dañ ci tiré ay que ni dinañ gën a privilégier les porte à porte parce que man expérience bi ma am mooy porte à porte yi ma def pratiquement ça nous a ça nous a ça nous a coûté bien ensuite élection yi moi j'ai gagné moom bureau de vote et mon centre de vote ça aussi c'est important parce que nit booy postuler dara il faut nga am une base locale d'abord sa koñ fa nga dëkk sama centre fii la nous avons euh, j'ai gagné euh, le mon bureau de vote et mon centre de vote on a gagné aussi un autre centre de vote fële euh, contribution directe yeneen centre de vote yi tamit am nañ ci loo xam ne vraiment c'est c'est acceptable parce que tamit 14 listes la woon may lancer encore un appel pour waa Thiès ci élection yi ñu am ci expérience parce que man expérience bi ma ci am te waxoon naa ko avant élection yi ñun ñi nga xam ne ñëpp ñoo war a nekk candidat nañ toog ñu waxtaan ñu jiital kenn tey nii li ma waxoon moo nekk tey nii liste yi nga xam ne à part de man jëm ci suuf yëpp bu ñu àndoon bu ñu àndoon ñun nekk benn ñooy raw fuuf boo xoolee boo calculer voix dinañ am plus de ay 7000 voix yoo xam ni vraiment ñun ñooy jël pe te pourtant waxoon naa nit ñi dañ toog waxtaan mais ku ci nekk danga bëggoon demal sa bopp demal sa bopp boobu moom moo indi lii lépp parce que rew gàddu la bu fekkee liste yi dañu bëre il suffit nga raw tuuti rek da ngay dangay dangay da ngay da pour que beneen yoon ñu xalaat ni liste yu bëree jaru ko nañu toog waxtaan xam nga waxtaan ci bu ñu gañee lan la ñuy def loolu moo ëpp njëriñ ku ne dem def liste non seulement liste yi bu bëree rew gàddu bi daf ñu daf ñu daf ñu pénaliser mais mais en plus moyens yi nga xam ni moom ngay dépenser day bëri bu fekkoon par exemple quatorze dis euh, dix dix dix euh, dix candidats la ku ci nekk da ngay indi sa moyen donc moyen day sakkan dañuy gën a mën a dañuy gën a mën a def campagne boo xam ne campagne bu bien la bu civilisé ressources humaines yi day gën a bëri et cetera mais ku nekk bu demalee sa bopp kii day ñàkk moyen ñi amuñu moyen ñi manqué lii ñi manqué lii ñi manqué lii loolu vraiment nañ ci bàyyi xel ñun waa askanu Thiès bu fekkee Thiès rek moo ñu tax a jóg échéance yi bu amatee nañuy waxtaan ku nekk fàtte sa égo pour que ñu mën a dem ci kanam yéen ñëpp ñi nekkoon cees yëpp en ligne ku ñu nekk da bëggoon defar Thiès mais des fois day am fu ñu toll dañuy fàtte su nañu fàtte suñu ego pour mën a def benn say pour pour mën a jële loo xam ni moom moo fi nekk waaye d'une manière générale candidats yi nga xam ne tamit ñoo nekkoon ak man ci liste dis les dix tamit maa ngi leen di encourager bu baax Euh, di leen ñaanal yàlla vraiment di wax ni candidat yu sérieux lañu vraiment ñoom ñëpp ku ci nekk boo leen joxoon maire bi nañ ko doxal di jo di di di félicité di di encouragé tamit waa Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon fii Thiès pendant vingt ans euh, mais aussi en plus di félicité aussi mon frère euh, Thierno Alassane Sall le ministre Thierno Alassane Sall qui est mon frère vraiment di ko félicité ci score bi mu def bi mu def élection locale yi donc élection yi jàngat bu ndaw boobu laa ci am.